bismillahi irrahmani irrahim wasala allahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kafani allahu min assabai kayda alxalaiqi illa riwaay wala fi sumaani wassalaamu هدى الأداء الأسماء الإسام يا حي يا قيوم يا سميع يا أق يا سيلق يا سريع عجل لك من أراد النفس أمق في سليل بطن رمسي زني كما زنت نبي سرى الفلاخ سلا الليل وما لا الفلاخ عمدي وذكر لمن كلي بي سائرا لو ردا دون سخط عند سرسرا عمدي وذكري لمن كلي بي سارا law ridan doona suqtin inda sarsara law sanaayu wa ridwanin bila siqatin musqaada min banni daymaana ansaara lillahi kulli lada abaaru makrumatin min artalna wa fi ajamma man inna lazina ila sarsara xad xasado siyaaratin faaraxo daarayni aw saara bëggul wurus bëggul xaalis faalewul naga ki gileema ki la daan jox naari gànnaara bamba bëggul wurus bëggul xaalis faalewul naga ki doom gileem ak sëfam la daan jox naari ganaara naar yaa nga naan dee tawaay kajoor sunum réew Seex Bamba mbër ma fa feeñ feeñu fa gànnaara naar yaa nga naan yaa xëy si kajoor a gën sunum réew Seex Bamba mbër ma ba feeñ feeñu fa gànnaara haddi Seyxul Xadim kajoor jërëjëf mbokk mi bàyyi xel te dañu topp diñu seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di siyaara gën jaa màgginu siyaar bopp taale bi dina ko siyaara kilifaam nuyoo bi ak siyaar bi nag ñu ci jiital sahibul fadila jàmbaaril islam Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàlla na fi yàgg lool te ànd wér. di beral ab nuyoo Serigne Bassirou Mbacké Antañang xalifa Cheikh Ibrahima Fati borom Daarul Moxti waaye di siyaare bu baax itam sunu bunt ci kër Cheikhul Khadim maam Serigne Bousso xalifa Serigne Thierno Bousso xanaa di ñaanal Serigne Koso li fekk doomu aadamaa ngi dox ci kaw suuf sans borom dolli njéggal moom. te boole ko ak sama wajur ma boole woon ak moom ci barkeb lislaam di amaat mbégte bu baax di nuyu mboolem umma islamique di siyaare itam nag bu baax wuute joo xam ne dafa teew muy soxna maam Isa Mbàkke njiitul fédération ahlu café di ko ñaanal yàlla yàlla may ko fan gudd lool wànd ko wér di ko ñaanal mboole mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom liggéey bi waaye kilifa ak jotaay bii nu toog ñu ngi koy nuyu di ko ndokkeel muy sëriñ Modou Kara Mbacké ibnu sëriñ Modou Fati Xëri di ñaan sama borom yàlla guddalu fanam ci barkeb lislaam euh, ni ko bokki waxee rek ànduñu ak soxna si ci sayir waaye weetuñu benn yoon ngir jëmmam doxin wi mu daan doxee rek boo daan ànd ak soxna maam Issa Mbakke dara wàññi ku ci kon loolu tawfeex la junu yàlla defal noo ngi siyaar itam yu baax yi mu feggool sëriñ daam sugu nga xam ne buñ ko tuddee mel na ne tudd na njabootuk sëriñ jéeri waa daan sugu waaye di siyaar baax sëriñ Habibou Niang ak sëriñ Cheikh Ndiaye waaye sëriñ Mouhamadou Lo Sey moom it noo koy siyaare bu baax am mbégte nag di nuyu ak a siyaara bu baax soxna nday Mbakke bintu sëriñ Mbakke Madina feggoo ak soxna nday sey na bu Mbakke bintu sëñ Modou Fati Xari ñu feggoo ak soxna maam Jaara Mbakke ak seen jàmbaar ji nu feggool nga xam nii la daan ànd ak soxna maam Isa muy soxna Faamaloo noo ngi ñaan sama borom yàlla guddal seenu fan te may leen wér ci barkeb lislaam di amaat mbégte itam nag di nuyu ak siyaare équipe technique bi nu àndal di siyaare baax soxna Jamilatu soxna maam say Mbakke jërëjëf Cheikh Abdou Lahad ci fàttali gi noo ngi leen di ndokkeel di leen siyaare bu baax di ñaan sama borom yàlla may leen fanu gudd ànd ak wér ci barke lislaam di ndokkeel baax équipe technique bi nu àndal nga xam ne communication Sar Sara la nanu jaayante woon wax ne soxna si dañu ànd ak yow liggéeyal lislaam bi nu koy gis ci sunu biir ak ren jii bi mu teewulee ci jëmmam dara soppikuwu ci waaye seenu njàmbaar sax dafa yokk ak seen Pastef ñu jël ne boobu teg ko ci loxoy Serigne Cheikh Chamb ak Serigne Bekkaay dañ ko mën a jot li mboole mbokki taalibe yi nu àndal ñoom ñëpp Cheikh Abdou noo ngi lay nuyu di la siyaara di ñaan sa borom guddal saw fan yow it jàmbaar nga joo xam ne liggéey bi li nga ci def la yaa ngi koy ànd ak xel mu daal ak xol bu sedd ak ko yaatal bu baax Euh, sëriñ Bousso Seck mii nga feggool nga xam ne yéen ñaari yéen a fas yéen seq jotaay bi di nuyu itam xale ahlu café gi jaarale ko sëriñ daam kafe ak mboole mbokk yi ma àndal ñoom ñëpp waaye nuyu ak siyaar baax jàmbaar ji nga xam ne chaque année buñ ñëwee ci moom la ñu dal si mu nekk mbégteem xam ngeen ne suba ak jàmm mi ngi waajal bés bu mag bés bu am solo muy bis boo xam ne dañ koy jagleel sëriñ sàmba moom Sabar Fall ñoo koy siyaara di ñaanal bokkam yi mu feggool te jàppale ko ci liggéey bi te wane ci xar kanam bu leer nañ ak mbégte loolu nag feex la Cheikh Abdoulaye dañuy njëkkante waxtu wi rek laaj bu njëkk bi day ànd ak sab nuyoo muy gis suñu yàgg nañu fee ñëw ngir màkkal si Sarsara daaw ñu ngi ko tudde nag Cheikh Mouhamadou Moustapha ren yi ñu tudde ko Cheikh Mouhamadou Fadal day mel ne ñoom ñaari seen ñaari jëmm yee jenn jëmm la woon xam naa ci gàttal rek dangay ñëw ak ñun ci diggante Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul ak doomam jooju ñuy wax Cheikh Mouhamadou Fadal kan mooy Cheikh Mouhamadou Fadal digg mag Cheikh Sarr Cheikh euh, sëñ Mortala ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di sant Cheikhul Khadim sunu yaakaar tey ëllëg di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne mooy jëwriñu yoon wi. yàlla suñu boroom may ko gudd fan gu ànd ak wér ba naal yëpp mu àggale ko te ñu ànd kook moom di ko ñaanal Babul Muridina sëriñ Amdi Modou Mbend Fall di ko ñaanal taalibe yëpp di ko ñaanal tam jabootu maam Cheikh Ibrahima Fall di sëriñ Abo Baraka nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu Cheikh Mamadou ziar délégation bi nga xam ne ñoom la fi yebal ci njiitu sëriñ Sarif Mbakke ak sëriñ bu Mbacké moom sëriñ Abdoul Fattah ak mboolem sëti sëñ Fallou yi ak turandoo sëñ Fallou yi nga xam ne teew nañu ci dix-neuvième édition bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee Cheikh Mamadou Fadal di nuyoo itam ci turu soxna maam Issa Mbacké ahlu café comme ni nga ko waxee waaye di ko jaarale ci sëriñ Modou Kara ak bokkam yu baax yi nga xam ne tudd nga leen léegi ñoom ñëpp ñuy suñu ay sang yoo xam ne Eh, dañoo ànd ak ñoom te jëmmi Serigne Touba rek tax yal na yàlla guddal seen fan ñoom ñëpp te may leen wér ba nu àggaleeg sago di nuyu sëñ Sabaara mi nga xam ne eh, fii ci moom la ñuy dal te mu yaatal lool moom itam yàlla na ko yàlla gën a jàppale ba lu man ren rek su déwénee man lu ko ëpp. di nuyu itam suñu bàjjan ajaratu faamaloo ak ñi jóge Ndakaaru ñi jóge Thiès ñi jóge Mbuur ñi jóge Touba. ñu jóge Njaxiraat waa Louga waa Kaolack délégation waa Bambey ñu ngi leen di ziare bu baax a baax a baax di leen ndokkeel ci taxawaay bu rafet bi ak jàpp gi ñu jàpp ci liggéey bi yàlla na leen yàlla fay barkeb Serigne Touba. di nuyu mbokki taalibe yëpp daal bàyyiwuñu kenn bëggunoo lim waaye itam bëggunu tam eh, kenn nekk ci délégation bi tam ñu bañ laa jox itte. kon ni nga ko waxee rek ndaa mel ni limaa leen nga ñu ñi ñu waroon a lim lépp ngir eh, nit ñi sonn nañu. te soxna yi ñu ngi bëgg a dal te li ñuy waxtaane nekk lu am solo loo xamante ni bi tam bëgg nañ eh, ñu man koo jariñoo di nii itam eh, sëñ bu mi ñu seqal plateau bi muy sunu magum taalibe di sunu sëriñ ak mboolem ñi nga xam ne war nañoo def ay intervention ci biir waxtaan wi ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax ak kilifa yu màgg yi nga xam ne ay sëti seexi sëriñ Touba lañ yoo xam ne seen maam yi ñoo ñëwoon fii ci Sarsara fekk fii sëriñ Touba ñoom itam ñuy dox tànk yooyu yal leen yàlla fay barki borom Touba. ni nga ko waxee nag ren mooy dix-neuvième édition màggalu Sarsara. Mhm. Euh, ñu tuddee ko nag Cheikh Mouhamadoul Fadal. ginnaaw bi nga xamee ne dix-huitième édition bi ñu ngi ko tuddee woon magam ju baax ja de Cheikh Mouhamadoul Moustapha Al Karim. te ñu defoon plateau spécial daaw ci moom. Euh, fanu jaaroon tam ñu bëgg faa jaaral rek ndax ndox warta tegg aw yoonam. Euh, nga laaj tam laaj boo xam ne laaj bu tënku la waaye laaj bu yaatu la. Mm-hmm. waaye nag dañ koy tënk rek ndax ni ma ko waxee léegi lu ñëpp bokk moom loo ci wax rek mu doy lu ñëpp xam tam loo ci wax mu doy. Mm-hmm. Eh, Cheikh Mahamadul Fadal eh, boroom xam-xam yi nanguwuñ ko waxtaani nit eh, te waxoo yi may bëgg a tudd mooy ab juddoom aw askanam am njàngam ganeem jamono loolu lépp nag mën nañ koo tënk ci baat yu gàtt gàtt gàtt ndax moom askan wi mu bokk. Euh, mën nañu wax ne Mbàkke ak Mbusoobe la euh, sëñ Moussa Ka wax na ca xarnu bi ne Seex euh, Bàmba yaa matub sëriif Mbàkke ak Mbusoobe dootu soof seen xol yi war ne na maam jaare tiim na xarnu bi mhm. kon ci yaari askan yooyu la bokk mooy doomi Samsun wa xamar Mbàkke ak Mbusoobe duñ ko jar mooy nàmp ñaari weeni ngor mooy xaadamam ci xarnu bi loolu tam yaakaar naa tënk na li jëm ci fànn googu mhm. bu dee ak juddoom mi ngi gane jamono ci daaru salaam ndax sëñ bi mu jógee Mbàkke Bawal rek dafa sañc daaru salaam ñaari at la fa am ci biir ñaari at yooyu nag ci la ñaari taawam yooyu gane jamono muy Cheikh Mamadul Moussa ak Cheikh Mamadul Fadal daaw bi ñuy waxtaanee Cheikh Mamadul Fadal waxan naa ne magante nañ juróom-benn weer ak fukki fan ak juróom-benn ñoom ñaar wax nañ ne tam ñoo bokk benn lieu buñ ganee jamono muy daaru salaam loolu mooy li nga xam ne moo gën a lënk Eh, bi loolu amee nag sëriñ bi dafa toxoo wasachin Touba te mooy 1306 bi mu toxoo Touba nag diir bu gàtt njaboot gépp dañoo ñëw Touba eh, Cheikh Mamadou Fadel kon mën nañu wax ne eh, Touba daal mooy barab bi nga xam ne mhm. fa la nekk ba dal jàng ci at yu njëkk yu sëriñ bi bi mu matee dal jàng itam sëriñ bee ko dalalal boppam mi ngi ko dalalee ci daaru naar moom mooy kër sëñ Souhaïbou ñu ñenn ñi ko daaru rahman sëriñ bi daan fa dalal ay gani naar yoo xam ne daana saafonteeg ñoom ci xam-xam ak di leen teral ngir jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa la dale jàng moom Cheikh Mamadou Fadal waaye nag xam nga ni sëriñ bi juróom-ñaari at rek la am Touba ñu jénne ko Touba yóbbu ko Mbacke Bari bi mu demee Mbacke Bari nag xam nga ne njaboot gi tam ñu bari ci ñoom dañoo toxu fekk ko fa batale woon na batale sëñ Mbacke Bousso boo xam ne eh, am na yu bari yu mu ko waxoon ci ay ndigal Euh, ku war a egg si fële ci Mbàkke Baari na ñëw ku wërta egg si tam bu mu ñëw waaye ginnaaw murid yi moom sëñ bi rek lañ nam mu ñëpp dañoo mujj laxas rek dem gànna dem euh, fële ca Ceen Jolof ca ca sanc ba ci euh, maanaam fële ca Jolof di mu ne Jolof Mbàkke ba ñu fa àggee nag xam ngeen ne am na ay jote yu am ak i jokkalante diggam ak tubaab bi ba ci loolu rek ci lañ ko war a génnee réew mi mu war a bàyyi nag njabootam ñu nekk nag ay jirim nekk tam ay baayo mooy nekk ay ndaw mhm. yoo xam ne eh, Cheikh Moustapha waajuram wàccoon na liggéey eh, sëñ Fallou waajuram mi ngi fii waaye waajuram wu góor mi ngi dem mhm. bàyyee leen seen baay borom daarul Muxti jox ko tam ay recommandation na nga fexe ba ñu jàng ndax doomi soxna dafa war a jàng mhm. na nga fexe tam ba yar leen ba kuñ gis mën a jëflante ak ñu moom ci lu dul benn jafe-jafe na nga fexe tam ba buñ saalañ mooy seen karaw bu mu sëq nanga nga fexe tam ba buñ buun mooy buñ namm dawal loolu la ko joxoon ci ay tegtal yoo xam ne dane ko woon na nga ko def euh, sëñ Fallou nag euh, teel a nekk ku sotti koo xam ne euh, am na yu bëree bare sax Cheikh Mamadou Moustapha ci boppam da ko ci daan jox ndigal ngir moom mu di ko taxawee ñaare suñ masaan wax dara ak sëriñ tubaa moom la ñuy bàyyee mbirum wax ja mu wax sëriñ bi ndax ku dégg sëñ bi la woon dégg naa ci alaaji baara mu nettali wax ne sëñ Fallou moo ko wax ne ko contestant bi nga xam ne ñoo jóge woon jeewal ñëwoon Mbàkke Baari ngir yëgal sëñ bi ne ko kilifa gu mag ma nga Louga di la xaar eh, contestant boobu am na ko ca wax ne seen waaj yi dootu leen ko teg bët mukk mukk oh. mukk sëñ nee na boobu maa ngi dégg li kooku di wax waaye nee na sëriñ bi dane lu mu wax ñu baamu wax ja ne moom day nee na Mbàkke dootuñ la teg bët mukk mukk mukk nee na sëñ Tuubaa wax ca kaw ne li wax dara du ci dëgg ndax fii ma taxaw kat laaj naa sama boroom euh, li ma bëgg lépp mu ne ma danaa la defal lépp loolu ci alaaji baara laa ko déggee kon ba sëriñ Touba di dem mhm. sëñ Fallou xàmmee na bu baax ba xam la xew la sëñ ba doon dénkaane mu di ko dégg te mooy nañu jàng nañu yaru ak yi ma wax mu topp ci yooyu sëriñ bi nag dem wan ginnaaw njabootam bàyyi leen loolu nag waroon naa nekk pression bu rëy mhm. boo xam ne njàng ma sax mën naa bañ a sotti ndax koo xam ne tas nañ sa dëkki waajur mag ñi ànd ak moom teqale nañ leen teqale nañ leen ak seen waajur bàyyi leen ci ab àll boo xam ne dara matul ci li tax dund mën a am waaye ngeen am sago balam leen batale ngeen nekk ca na ngeen ca war a nekkee loola taw feex gu rëy rëy la kon bi sëriñ bii dem daal ñoom tumuranke nañ lool ci gisatuñ seen waajur gisatuñ dëkk boo xam ne moom la sosoon ci àll bi lañ nekk te ñu ngi fi nekk ak seen waajur borom daaru waaye sëñ bi batale leen ay batale waaye loolee lépp tam ñu taxaw ca bi sëriñ bi demee ci géej gi tam dañoo wéyal warugar wa rek te mooy nekk ci njàng ma ba diir bi bi nekk ci géej gi eh, toll ak juróom-ñaari at yu tegal mokkal nañ fi alxuraan ba bind seen ay kaamil nga xam ne bi sëriñ ñëwee jóge ci géej ga ba egsi jot na kaamil yooyu yii ba xool ko mu dëppoo ak na mu ko bëggee woon eh, wax na tam ca wala fal wa cerno xat wa faa mooy li ma bëggoon rek la def mm-hmm. su ma fi nekkoon tam li may def rek moom la cerno def kon jàngal na leen ba ñu won na am lef ba xam li ñu war a xam lépp sëriñ bi na ñu bisiwaat 1902 fabuwaat tam 1903 ngir ñëw gànnaar bi mu egsee gànnaar tam ba installé wu dafa woolu njaboot gi ngir tarbiya gi moo ko bëgg a def ci loxol boppam ndax li mu bëgg a def ci Cheikh Mouhamadoul Fadal bëgg ko def ci Cheikh Mouhamadoul Moustapha bëgg ko def ci boppam yu baax yi kenn doyu ko ci jëmmi boppam moo ko ci doy moo tax mu woo leen ñu ñëw gànnaar fekk si ko fi loolu tam sëñ Moussa bind na ko sëñ Moussa Ka nee na bambaa nga leen tarbiya fii Sarsara ak Jarraar yi ni saa Lansara tarbiya gën a ñaari anam rek la ci jeexal mhm. benn ba mooy njàng mi ndax jàngoon nañ alquran waaye alquran dafa am lu koy accompagner mooy nga jàng xam-xam mu mhm. boole leen nag ay boroom xam-xami naar yoo xam ne da leen a wax ne leen téere bu mat a jàng bu ñu war a jàng rek man maay wax booba ban la ndax njàng bari na waaye ba am njariñ man maa koy wax mhm. mooy tànn kon téere yi mu leen di jàngaloo ba mu leen ko tànnalee ba pare tam da leen wax ne leen téere bi kat li tàmbulee ci arafu njëkk wi ba ci arafu mujj wa fu fi baat nekk na ngeen ko xool def ci seenum xel waaye mokkal gi ak baña a fàtte gi maa ko war lool loolu mooy bu njëkk ba beneen ba ci des tam mën leen doomi soxna mënut a bañ liggéey ndax liggéey dafa bokk ci principe yoonu murit al ilmu wal amalu jaw araani li xayri daaray ni yej lu baani kon nag bu leen fi nekkee loxoy neen na ngeen jiima liggéey loola moo tax mu dogal leen ab tool boo xam ne dana leen jubluwuma ci ngeen di lu bari loo xam ne dama koy jaay di ko def ci sama bopp wala ma koy jox keneen mu koy dundee mhm. waaye dama cee jublu rek ngeen di ma liggéeyal ndax ñàkk maa liggéeyal man suñu ba daa wóoru ma bëgg nag mhm. saa ngeen xëyee xëy ci tool bi rek su ngeen xëyee ci tool bi nag benn bés mhm. naa ñaan sama borom mu defal leen ko ayu bis nga xam ne kon ñoom seen liggéey daa sa kan ndax koo xam ne boo xëyee benn bés am juróom-ñetti fan <laughs> soo xoolee tam araf wi boo ko xamee dootoo ko fàtte loola mbir la moo xam ne baatin la bu sëñ bi def ci ñoom kon ci gàttal rek mën nañoo dënke noonu ne <laughs> sëñ Fallou noonu la dundeek sëriñ bi ci diggante juróom-ñaari at yee mu dem Gabon mhm. ak ñeenti at yi mu nekk gànnaar te nag loolu mooy réussite sëñ Touba ndax nee na li ma am ci yàlla li muy bari bari bari bari maa ngi ko amee ci fukki at ak benn yi nga xam ne mooy tumuranke ga ca gaboŋ ak pay gi ci gànnaar soo ko boolee fukki at ak benn rek lay doon ndax ñeenti at ak juróom at yu manqué loolu rek lay doon fukki at ak benn jàpp fukki at ak ñaar kon noonu la àndeek àndee ak daal ci gàttal asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam jërëjëf Cheikh Abdou Lahad ci bi sa kàddu di daan rek sunu xel daj Serigne Góor Yàlla Mbay ak Serigne Sang Diagne ak euh, sëñ Bamba sëñ Dame Thiam ñu koy wax sëñ Dame Kara ñu ngi leen di ndokkeel ñoom it di leen siyaara jëwriñu yàgg ànd soxna si lañu te boobaak léegi ñu ngi ci gën a farlu baax a baax di siyaare baax sama xaris daam Diop xam naa ren daame la gisuma ko ci jotaay bi waaye la côté xam naa ngànt la euh, sëriñ bu Bousso dégg nga fi kàddu Cheikh Abdoulaye daanoo day mel ne bu ñu dikkaatee nag ci jëmm jooju Cheikh Abdoulaye dikk na ci fi mu feeñee jamono ak askan yu bokk laal na ci am njàngam te sëriñ bi wax ne min xaata ba xur fi ilmi sariati ma ilmi aqiqati min qabli riadati waaye ginnaaw bu ñuy jàngal nit ki dañuy tabax jëmmam ci jikko yu rafet lan mooy jikkooy Cheikh Mouhamadou Fadal miin duppee bis bi aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiya sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi cheikh al murabbi wal gaws al muraqi xaatimati al mujaddidina wa baqiyati al ulama al amilina cheikhina wa sayidina mawlana wa sanadina muhammad ibni muhammad ibni habibillahi al maaruf bismi abdillahi wa xadima gannaaw bu nu sant yàlla subhanahu wa taala julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa di sant achi ahmadou bamba xaadimu rasul sunu yaakaar àdduna ak alaxira cant gunu méngaleeg sunu bépp noo di boole nuyoo ak ziara bu nu doore ci kilifa ak murid yi muy acheikh mahamadul muntaxa di ko ñaanal yàgg ak wér ak matal ay mébét ci liggéeyal acheikhul xadim te nu ànd ko ak moom waaye di ziare njabootuk gi nekk ci barab bi te mooy njabootuk sëriñ Masamba Eh, di jël ziar bi di ko teg ci loxoy Serigne Modou Kara mi di ko teg ci loxoy eh, soxna Ndey Saynabu Mbàkke di ko teg ci loxoy soxna Maam Jaara soxna Ndey mbakke ak mboolem njabootuk Cheikhul Khadim gi nekk ci barab bi ci njabootuk deret ak njabootuk pas-pas mhm. di ziara itam Serigne Saa Baara mu baax mi nga xam ne am na liggéey bu rëy bu muy defal eh, sëriñ ma te mooy di ko fàttaliku di ko ñaanal waaye di fàttali mbindeef yi ay axlaa xam ngeen ñu mën a def al iqtidaa bi roy ko ci bëgg sëriñ Touba ak nangu koo lëggeel ak yeex ci moom mhm. waaye boo ne sëriñ Fallilu ak axlaa mu jukko sëñ Fallu dafa déppi sëriñ Touba lépp loolu euh, sëñ Abdou Lahad tënk na ko waaye li nga wax ni li ci jëkk rek moom mooy sëriñ Touba day ndeyam di baayam am na ci benn xasida boo xam ne dama wax li sax ba Seex Bamba di moom Fallu di daam ñu bokk maam lawoon fa Bamba ne fa moom maam jaara maam awabus maam astawaalo moo di maam doomam a am ku mel ni daam te koko wuutu mooy sa doom nga wuutu maam jaara bus bokk ci zahir ak i bóot te bokk ay mbër yu am na ci ay dëxañ yu ci mbiri maam awa bus kenn mës la gis ku ni moom nde soxna jaara lay donoom bokk mbusoobe bokk maam niroom di maam awa bus nde moom la roy wax ak i jëf ñoo bokk pas-pas ak i yëf ñii bokk sóobu bokk lef maam jaara maam awa bus waaye téere ba li ma ciy jukki loolu rek boo boo jàngee jësbul xulóob Sëñ Tuubaa day way yonent bi sax waaye ci am daax yi da lay da lay wax mbooleem luy dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. way tamit noonu la amee importance lu ñu fas la boo ko feccee mu nekk ab histoire dëgg la waaye Sëñ Fallu ci axlaax mooy dafa dippi yonent bi Sëñ Tuubaa nag loolu ci moom la ko jële sëriñ bi dafa wax ne bismi ilahi al karimi abtadi wa bi rasulillahi da da aban aftadi lépp lu may def maa ngi koy tàmbalee ci tur yàlla waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek laay roy wax ne xadram maxal bi bil iqtidaay su borom dafa móol sama xol ci roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam mënumaa wuteeg moom wax ne nahnu alladina la nazalu abada munjazibina litibaayi ahmada dama bokk ci wali yi nga xam ne majzuub laa su ma doon nelaw sax egg ci yàlla waaye litibaayi ahmada ma topp ci ngir mi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam jaaroon fu mu teggee tànkam ma tegaat fa sama tànk hmm. kon kooku dippi yonent bi sax wax yonent bi ne ko lay sat liyal yow ma xaajaatun u ammiluha illa xtifaika xafwal xal bi wal badan aw ma benn aajo budul di la roy royu jëm ak royu xol ko fase woon waaye di ko jëfee na nga ko doon jëfee sëñ Fallu foofu la nekk moo tax dafa dippi rasulullah sallallahu moo tax ci laylatul isra wal mi'raj gi mu ganee jamono mu ñaar fukki fan juróom-ñaar ci rajab hmm. dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi lay mën a cëpp hmm. xam nga loolu ay wax la wolof danaan moom de dane lay ne cëpp kii lay moom moo ne cëpp doon gi ko doon moo tax mu ne dane lay man ma a cëpp nga xam ne daa doon rasulullah daa doon rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne dane lay mën a cëpp xam nga bu doon keneen lay wax danaan moom de dane lay na cëpp waaye dane yonent bi sallam dane lay man mën a cëpp moom kon da koo indaale da koo indaale euh, moo tax suñu fallu ci wàllu jukko bu ñu waxee jukko bi kulli maanal kalima lépp lu jukko làmboo ci dafa daj ci moom léegi nag ni mu xatee ni nga ma waxee danga may may rek ma ma def ab résumé bismillah ndax lu ci nekk bu ma ko jëloon day jal temps waaye ngir mu gàtt mm-hmm. ci rafet jukko sëñ Fallu yërmande ji nga xam ne moo tax suñu borom wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin mm-hmm. yërmande jooju la bari la ci mboolem mbindeef yi lamboo ko ci ñoom sëñ Fallu amul kii ab jullit la wala ab yéefar amul kii ab tiijaan la wala ab murid la bay am kii sama taalibe mbaa diw moom kuy doomi aadama rek li yàlla wax ne wala xadd karram naa banni aadama wa xamalnaahum fi l barri a bahri wa razaqnahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ala kasirin mimman xalaqnaa tafdilan képp kuy doomu aadama sëñ Fallu jox na la wàcc waay ak yërmande sëñ Falilu 896 personnes la yóbbu mag juróom-ñeenti téeméeri nit yu manqué ñeenti nit loolu xanaa dooma wax ne ma ñëpp ay taalibeem lañu waaye moom dafa bokkoon ci pas-pasam mooy képp kuñ ko ne diw ba xam ne yow jubluwoo ko ab list la lay def day dangay da mu indi la enveloppe ne la sëñ Fallu ne daa bëgg nga ziyaara ji yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee yow mu xam ne da nga koo bañ ak nga dee ngay yemale mbañeel gi moom foofu nga koy suule du taageenu ñi mu doon yóbbu makka ay taalibeem kese lañ waaye ay noonam la la jëkk a yóbbu makka ba noppi 413 hmm. oto sëñ Fallu may na ko ay doomu aadama ñeenti téeméeri oto ak fukk ñett Serigne Falilou yóbbu fay na ci ay bor 607 millions juróom-benni téeméeri millions ak juróom-ñaari millions yoo xam ne xamul ñii ñii mu koy fayal nuñ sant ak fu ñu jóge ku ñëw ci moom rek indi aajo boo dikkee la muy def mooy sa aajo joojee mu faj loolu bokk na ci li gën a yéeme ci moom am na ku ñëw ci moom ne ko Mbàkke damaa rey ab tubaab ñu ma ñu ma naa joxe téeméeri junni sëñ Fallu waay waay indi leen indi bay wax sama turandoo man bàyyi sëriñ Bousso man ci biir kër sëñ Fallu laa juddoo uh-huh. sama moom la doon tarbiya tur yi ma tudd moo ma ko tudde demal ci biir waay mu te indi xaalis mu indi cinq cent mille mag ñi ku nekk taf sa gémmiñ mu jox ko ba dem waa waa ji ku rey tubaab du jot Mhm. ku rey tubaab doo am jot doo am jot dëgg la ña koy wutal diyee ñeneen la ñuy doon waaye du moom mooy am liberté di wëndeelu di wut xaalis bu mu fayee kon xam na ne dañ koy nax waaye loolu la jur loolu euh, bëgguma ko indi muy gudd mooy digganteem ak sëñ Tuubaa la jaaroon mu laaj ko ne ko ndax dañ laa mënta nax ci man sëñ Fallu na ci yàlla mu ne ko man sama sang ba rasulullah sallallahu alayhi ma naxee ci moom ma nangu bisu keroog nag la fas lu ko nit naxeete ci mhm. nax ya nu a demee mhm. loolu ci rafet a dimbile gis nañ euh, xisa yu bari la léegi li sëñ Abdoulahad waxoon sànq loo xam ne du jeex loo ca wax day doy mhm. fii ne boo bëggoon a topp diggante señ Fallu ñi mu jëflanteel day jël temps bu bare ba waaye ci jukko da cee am kum ci dendalul ndax boo seetloo ci wàllu muñ li mu waxoon ne waa waay maa xajoo bang bang waay ay géej laa du ma ndox ci pot su ma baxee lépp yàqu man mhm. géej laa du ma ndox ci pax ci ci du ma ndox ci pot su ma baxee lépp yàqu moo tax lépp lu waay ma sa def sëñ Fallu da lay muñal mhm. sëñ Fallu bay na ba mbay mi egg am ñu ko ñëw taal mbay ma lakk gendarmerie di leen recherché ba jàpp leen indi leen ne lu tax ngeen lakk ko amuñu walay mu ne waay waay seytaane rek ka leen ko xiir seytaane mu bon moom rek di bañ lu baax rek moo leen ko xiir waaye bàyyi leen leen ñu dem muy lu rafet moom Cheikh Mahamadou Fadel bàyyi Serigne Bousso jërëjëf ci borom jikko ji rafet jooju wax nga dëgg am na ku ma soxna ko maay Sénégal ñu ne ko lu tax mu ne ji maa liggéey sama nijaay Serigne Touba sama baay kon maay Sénégal te loolu daf ñu fàttali rek waa li suñu borom di wax da ngeen ànd jàpp ci bu mu gi te bu leen tàqali ko waxtasima bi ablillahi jamian wala tafaraqu loolu nga waxit ci jikkoom ji rafet jooju ci mën a sàmm kolëre ba nga xam ne bu ko doon def xoolu ci jàmbur bi ak jegeñaale bi dafa am ku dikk ne ko Senghor day danoo gis ni nga ko bëggee te du jullit te ma yaakaar na ko war a bañ ndax li mu nekk ab chrétien mu ne ko waaye ndax su ma bindoon ab kaamil nga xam ne maa ko bindal sama bopp sama loxo bopp ndax mook beneen kaamil ba nga fekk ca mbedd ma di ko jënd ñooy yem ci yow mu ne ko déedéet mu ne ko analu tax mu ne ko bind gi nga bind kaamil bi sa loxo bopp du ko yemale kaamil bu ma fekk ca mbedd mi xaw ma ko bind mu ne ko waaye damaa defe ne kon toll na ko sa bopp waay ko toll ne yàlla bind mbindeef ba noppi ma di ko bañ ko xalaatuma ko waay yàlla rek laay gis ci moom kon wala xat karam naa ba ne ji nga waxoon léegi moo dee siwaat foofu Cheikh xam ne ci lu gàtt rek ndax fi ne ni ko waxee woon léegi rek dañu Euh, waaye jëmm jooju di Cheikh Mouhamadou Fadal des ko munta tudd te tuddeesul Cheikh Massamba des ko munta tudd te tuddeesul moo du Moustapha mi maam yi soxna Ndeye Mbacké des ko munta tudd itam te tudduñu ci kàngam yi baax yi ku mel ne Serigne Mor Roqee bu sa sama Serigne kan mooy seex Cheikh Mouhamadou Fadal ci biir bokk yu baax yooyu. Ah, jërëjëf sëñ Mor di Kane di santam Serigne Bousso ci nga xam ne wax na ko ci makaarimul axlaaq te mooy jikko ju rafet inna yonent bi nee na innama ma li utammima makaarimal axlaaq mm-hmm. nga xam ne kon daanaka jikko ju rafet rek moo tax ñu bind doomu aadama dëgg la dafa bokk nag ci jikko ju rafet nga fexe ba say bokk nga rafetoo ak ñoom wallaay ndeysaan loolu dafa bokk ci jikko ju rafet mm-hmm. ndax sëñ Tuubaa wax na ci Masaalikul naan ne dafa am ñetti xeeti jaamu yàlla yoo xam ne boole nañ xeeti jaamu yàlla yëpp euh, ba ci njëkk mooy infaax fi sabilillah ba ca topp mooy saraxe ba ca topp mooy jokk ak bokk nga xam ne jokk ak bokk kon dafay farata ndax eh, ñaar ñu bokk dara ñu ne eh, dafa soob yàlla waaye yow doo tànn sa mbokk Cheikh Mamadou Fadal nag wax nga ko day mbokkum ñëpp moom dëgg la eh, waaye nag bokkoo ñëpp tam hmm. maay Sénégal jeexal na loola mbokk tam ñaar la mooy bokk ci pas-pas ak bokk ci deret moom ñi mu bokkal ci pas-pas rafetal na digganteem ak ñooñu waaye ñi mu bokkal tam ci pas-pas rafetal na digganteem ak ñoom xam nga soo gisee mu ne maay maay galas dama naan galas rek mooy am naa mag ju baax ju toll ni Cheikh Mamadou Moustapha mhm. kon man du ma décidé waaye tam am naa rakk ju baax ju mel sëñ Bachirou kon du ma dem ab yónneen kon man dama naan galas rek nga xam ne kon kenn ku ne li nga amee ci moom dala koo jox te sëñ Tuubaa dafa am bayit bu mu wax bu am solo sëñ bi dane wal aqu aqan wal xalilu sidqa an daru min kulli xalilin aqa oh. nee na li gën a jafe ci àddina mooy xarit bu dëggu ak mbokk bu sëñ Fallou man sama turandoo daje naa ak moom ci Cheikh Mamadou Moustapha ñoom ñaar ñëpp ñu dem ziyaare ji seen mag yu baax joojee waaye dafa màggal Cheikh Mamadou Moustapha ba seex Moustapha gërëm ko sëñ Fallou di dem sëñ Abdoulaye ànd ak sëñ Fallou di ko gungeel sëñ Moudou Moustapha ndax comme xam ne sëñ Moudou Moustapha am na yéene jóg gunge sëñ Fallou ndax ni mekkoon nekkoon ci moom Euh, bu sëñ Mourou Moussa masaan woote tam ngir nem bëgge woon diisoo nga xam ne amul lenn lu muy diis de moom kees waaye day consulter taalibe yi consulter njaboot sëñ Tuubaa mas naa woote benn daje daal di wax ne nag maa ngi njëkk a jox kàddu gi doomi sëñ Tuubaa yi waaye sëñ Fallou dafa jog daal ko man Mbàkke euh, bu ma boole ci doomi sëñ Tuubaa yi ci taalibe yi ndax ba ma nee beatu bu nu wetee bil iraada lakum li kay onsa bi xarit aada laa jaayoon sama jën sama jureel jënde ko jënde ko ak taalibe sëñ Mourou Moussa ne ko waaye ginnaaw man yawa kon nag mënuñoo wax lenn ci sëñ Touba te waxuñ la ko noonu la meloon tam ak ma sàmba noonu la mel ak sëñ Mor Diarra gis nga ni ko sëñ Mor Diarra mhm. na lu ay yu ci ay xeeti eh, kii ay ay dénkaan yoo xam ne eh, ay tegtal yoo xam ne def na ko ci jëmmi borom borom saam Maam Mor Diarra mhm. ba sax gis nga jumaay eh, Mbacke xewar mhm. Serigne Fallou def na ci lu rëy rëy rëy ba ginnaaw bi ko sëñ Modou Sy Dieng di yeesalaat dane ab dongo bu nekkee kërub sëriñam su àllarba jotee war naa joxe àllarba te sëriñ fàllu dongub sëñ Mor Jaara la kon nag àllarbay sëñ fàllu laa jox njabootu sëñ Mor Jaara ba tax mu yeesal eh, jumaa ja noonu la meloon ak sëriñ Saaliw ndax wax nañ ne moo njëkk tudd koom am nañu wax ne sax sëñ fàllu am na bis boo xam ne taal na otoom dem xel kom yendu fa ba ngoon mu ñibbisi wax ne tool bii ka koy moom dama ko bëgg a liggéeyal hmm. moo njëkk a may itam sëñ oto sëñ Murtala oto sëñ Murtala ñëw na ci moom mu ne ko ana sa oto mu ne ko aw ma oto mu ne nañ ma wool Modou Bousso Dieng ñu woo sëñ Modou Bousso Dieng sëñ Modou Bousso Dieng ñëw yor ab 404 mu ne ko sa oto bi ana mu ne ko mi ngi nii mu ne ko demal indi bagage yi mooy carte grise yi muy àndal mu ñëw mu ne ko oto bi may naa ko sëñ laa ndax man sama doom du war oto doomi sëñ Tuubaa di dox nga xam ne kon moo li sëñ Bousso doon wax léegi ci 413 véhicules yooyu mu maye muy ñeenti téeméeri oto ak ñett te tey am na kilifa goo xam ne mën naa am fukki oto du may kenn benn. dëgg la de moom na moom maye na oto yóbbaale na nit. loolu itam makare ba xam mënu ko weesu mooy ku toll ni doomi Sëñ Tuubaa di door di dawal otoom ba romb mbokkum taalibe mu arrêté ko ngir néew doole mu ne bàyyi sëriñ bu sa taxawal mu taxaw mu yéeg mu ne ko foo jëm mu ne ko ndindi laa jëm fekk nag góor gi àggul ndindi ba muy laata àgg ndindi ne na ko may ma ma wàcc mu may ko mu wàcc bi mu wàccee mu ne ko foo jëm mu ne ko am ah, Mbàkke maa ngi jëm rek ci kër yii ci sanc yi mu ne waaw kër yi ci sañ ci nga mu ne ko waaw Mbàkke bu ëllëgee nii rek lay demee fu ngeen ñu dabe rek yóbbaale ñu mu nekk nañ la fekk ci yoon wi rek <laughs> ndax koo fekkul ci yoon doo ko mën a yóbbaale ku jaar ci aw ñal la doo for dara loo réer la kenn du ko for doo dab kenn kenn du la dab foofu fii rek ngay mujj nga xam ne kon ci biir yërmande ji daf cee lambaale itam li ñuy tuddee di la jàngalaale euh, man sëñ Modou Kara mii xam na Baye Mbaw Baye Mbaw mi ngi dëkkoon ci kër sëñ Modou Wade Xaré sëñ Modou Wade Xaré yàlla moo ko teral mu teel a am lim am ci sëriñ Touba nee na sax bu ma sëñ Massamba jurutoon may sëñ Modou Wade Xaré loolu wax na ko Baye Mbaw nee na ci biir kër sëñ Modou Wade Xaré yi wala ci fu ko jege dafa am koo xam dafa doon lakk dibi di ko jaay nee na nag def foofu ay bërigoy pétrole ak ay ngànji mat léegi am ca sawara sa lu ca fettax taal ay magasin ci biir marché Ocass booba nag Touba amul brigade boobu Touba amul brigade brigade Mbàkke la nekk boobu fa la commandant bi nekk ñu porté plainte nag waa jii nga xam ne dibala dibala tudd te doon lakk ndawal ci marché Ocass lakk marché bi bi mu demee bi ko commandant bi di enquête dana ko noo tudd mu ne ko Sëñ Fallu laa tudd mu ne ko foo dëkk mu ne ko Sëñ Fallu mu ne sa baay mu ne ko Sëñ Fallu kuy sa yaay mu ne ko Sëñ Fallu mu ne ko yow lii ngay wax bu ko Sëñ Fallu déggee da ngay gën a dee ci kaso bi mu ne ko dama bëgg nag Sëñ Fallu dégg waaye bu ko Sëñ Fallu déggee dafa woo commandant bi mu ñëw mu ne ko kooku ma dégg ne dafa am lum lakk ca marché Ocass te wax ne sëñ Fallou la tudd wax ne maay ndeyam maay bàyyam wax na dëgg ana mu ne ko ma nga ma denc mu ne ko demal indi ko te ngeen ànd ñëw ba mu ñëwee commandant bi la wax ne ko demal ca marché ba ku fa lakk li ñëw ba ñëpp ñëwee dana leen di ba mii dey maay ndeyam di baayam fii tam la dëkk li mu wax lépp dëgg la damaa bëgg nag koo xam ne mën ngaa muñ mu la lakkal nga muñ ko te sëñ Tuubaa tax ku munta muñ lam la lakkan nga wax ñaata la lakkal man sëñ Fallou ma fay la ndax kenn du ma yaakaar yaakaar di tas kon da doon làq nit ñi te te gis nga dafa am lu am solo loo xam ne war nañ ko xam gis nga nit ki ñu ngi ko doon waxtaan léegi ci ngoon ki nga wax ne ko dama la jox sama bopp àddina ak àllaaxira mu ne moom sa àllaaxira képp lay réglé mais sa àddina du ci réglé dara bu yeboo nga seeti keneen ndax sëñ Tuubaa bu ñu koy topp <laughs> àddina ak moo tax ñu koy topp sëñ Tuubaa moo ko waxal boppam de sëñ bi moo ne oh. yàlla daf maa jox àddina yàlla daf maa jox àllaaxira boole ci àddina ndax yàlla soo ko mayee soo ko ñaanee li nga bëgg dalay mayaale li nga bëggut àddina na soxlawuma ko waaye dama ko fi teg su ma gisee ko soxla ma faj ci aajoom waaye yow ma xiyaam moo ma tax a jóg kon sëñ bi nekkutoon paaka benn boor waaye ñaari boor la woon day dimbali nit ñi àddina di leen dimbali àllaaxira moo tax sëñ Fallou am na bis boo xam ne foofu laa jeexale dane du ma du ma ubbi tey dane du ma ubbi tey bokk yi ñëw di dagaan comme li nga doon wax ci mbokk jàmbur yi ñëw ñëpp ñëw ba ba tisbaar jot ndax coono bi mu sonnoon mu mu ne mbaay bàyyi so nee na ma laal buntu bi mu ne koo kan la ma ne ko man la Serigne Bousso mu ne ko lu tax nga laal buntu bi te ma ne woon ubbi tey mu ne ko mbooloo mi dañ fee bari te ñëpp yow lañ yaakaar te kat sa baay ba muy way yonent bi dane wal waccu maa il xumma mi maanaam nit ki su jàqee ba ñëw ci yonent bi njàqareem day jeex nit ñi nag suñ jàqee ba ñëw ci yow mbàkki seen njàqare day jeex kon nag damaa bëggoon ko ubbi ndax kër gi fees na mu ne ko génneel toogukaay bi mu génne toogukaay bi bi mu génnee toogukaay bi suñu bàllu toog dane ku ne na wax li mu bëgg am ñoo xam dañuy ñëw ne ko Mbàkke damaa am mbokk mu gaañu bëggoon ko jullee ndax soo ko jullee sama xel daal kii ne ko damaa am tudd bëgg am xar kii ne ko damaa am sarax bëgg nangam kenn ku nekk wax li mu bëgg waaye kenn ku ne nee na la nga ba nga sa bëgg-bëgg sëñ Fallou fajal sa bëgg-bëgg nee na ba fajalee ñëpp seen i bëgg-bëgg nag ba kër gi xaw a wéet mu tàmbalee bernde nee na ba muy bernde nag soow bokk na ca café bokk na ci ataaya bokk na ca nit ñi di naan ba mu yàgg genn góor ne damaa bëggoon a jege sëñ Fallou am la ma ko laaj mu ne ko bisimilah mën ngaa jege si kooku ñëw ne ko Mbàkke ndax nii nga def ak ñoom tey su ëllëgee noonu ngay def ak ñoom mu ne ko su ëllëgee noonu lay def ak yéen ndax man ku ma nërta àndal yow mal xiyaam du ma ànd ak yow fii loolu sëñ Fallou wax sëñ Fallou nee na ku ma nërta du ma nit du ma du ma yaakaar tuddee ma doomam di ma jox alalam hmm? ngir àllaaxira ma ànd ak moom addina bàyyi allaaxira loolu la sëñ Fallou wax nee ku ma nërta àndal fële duma ma ànd ak fii kon mbir mi àddina ak àllaaxira la ñaar yëpp la sëñ Fallou boole woon di faj aajo yi ñi nga xam dañoo jóg ngir àddina di faj aajo ñi nga xam dañoo jóg ngir àllaaxira te ñaar yëpp man na ko jërëjëf sëñ Abdou Lahad Dieye jërëjëf mbokk yi ni topp yaakaar naa ne émission spéciale bii ñu leen jagleel tey jii ci Cheikh Mouhamadou Fadal dégg ngeen ci loo xam ne tubarkàlla la Abdou Lahad loolu li nga wax rek sëriñ Fallou noonu la meloon ci sàmm kóllëre ci dundal ak bokk ci suuxat nga xam ne mooy diine l'islam ci wax nga dëgg ab murit buy jébbal naan jébbal naa la sama bopp àddina ak alaxira kon sëriñ bu jàpp ne mënalu la alaxira jër jébbal faw ngay jébbalu ci koo xam ne dalay teg ci yoon woo xam ne dana ci jaar bu ëllëgee mu rafet njort ci sa diggante ak sa borom bu ëllëgee Cheikh Mahamadou Fadal nag daa nekkoon jëmm joo xam ne sa borom mayoon na ko am na waa joo xam ne dafa ñëw ci moom sëñ Fallou yónnee ne na na waaj dama ko yóbbu Makka mu ne wax ci moom ñu ne ko tax mu ne damaa xam ne ni ma ko bañee nit du ko bañee nit mu la yóbbu mag ñu wax ko sëñ Fallou sëñ Fallou ne leen na waaj rek bi mu demee Màkka ba ñëw sëñ Fallou ko jox lañ ko gane léegi lépp berndeel ko bi mu noppee nag ba ñëw bañ indi ko sëñ Fallou nag muy ñëw di nuyu sëñ Fallou ko ana loo doon wax mu ne Mbàkke damaa waxoon ne ni ma la bañee nit du ko bañee nit nga koy yóbbu mag mu ne ko xanaa xamoo ne keroog bi ñuy ci ceen jolof la Serigne Touba am benn cadre bu mu doon liggéey liggéeylu ab ubeer ku ko liggéey rek su sëñ bi génnee ne bëggiwuma ko ni ba ak mu ne ana diw xanaa dafay ne ko ñu ne ko xakkee ah, mi ngi ci biir ñu dem wooye ko mu ñëw di sa baay mu nekk sa baay ba mu liggéeyee cadre ba noppi bi sëriñ bi génne dina xekk saa nii laa ko bëggee woon keroog laa fasanteeg moom kóllëre te bëgguma kóllëre ko gay doog du doog àddina doog àllaaxira loola war a ma yóbbu la màkk bu fi nekkoon moom la yóbbu màkk bàyyi sëriñ diggante Cheikh Mahamadou ak xikam waxoon naa ko léegi min ha tabaxuru fii ilmi sariati maa ilmi aqiqati kon lan mooy xam-xamu xikam ak seex Cheikh Mamadou Fadal yàlla moo joxe xikma kuñ ko jox jox nañ ko yiw bu bari Sëñ Tuubaa wax na ci benn caméra euh, bi xasida wax ne al xikmatu kal matar maanaam xikma dafa mel ni ab taw boo xoolee waykat yi ñaari waykat ñoo am shaa'ir boo xam ne arudi la ak shaa'ir boo xam ne tabi'i la mhm. tabi'i yuuna yi nag ñoo dàqawaya ñi nga xam ne ay arudi lañ ndax Euh, Serigne mu Ka daan na wax maa ngi tuuru bind li ko wër ci suuf ba mu laj ñu indi kayit mu sotti loolu ba noppi door a jàll Serigne Fallou xekk man li mu ci amoon mu ne su ko waxtaane mooy baat ak tontu yu bari la ci def xam naa <laughs> dag maa laaj lu mel ni géej maa jaaxal waaye dinaa ci jukki tuuti rek euh, soxna suñuy wax soxna mati ci njabootu Serigne Fallou la bokkoon dafa togg ay ginaar bi dikkee sëriñ bi jël loxoom def nii sëpp ci barkeelu jox ko dongo yi ginaar yee xéewale lool ñuy saali suñ fàllu daal di wax ne wa afdalul luhuumi lahmu patpati fi kulli yawmin usbitat ha yaamati waaw <laughs> yaamati ndawal yëpp li ci gën mooy ndawalul boroomi laaf mooy pëtpëti ne ko nag kon nag na ko saxal yow na mati xam nga pël yi li gën a bari na yàlla jéggal ci ñoom du ñu ñëw ne la asalaamaaleykum wala nangam waaye dañuy ñëw ne la jam ñaldo wala jam keldo dañ lay làkk pël bi ñëw te loolu yonent bi saa sam da ko dafa wax ab benn xadis ne man badda abil kalaami qabla salaam falaa tujaabu mhm, te it mhm. kuy nuyoo na nga wax asalaamaaleykum nuyoo bu dul asalaamaaleykum dañ ko sib mhm. pël bi ñëw ne sëñ Fallu jam jam ñal do sëñ Fallu ne ko laa tabtadi salaamatan jam ñal do fa innaha munakkarun yaa ngay do <laughs> xoolal way bi am na wolof am na pël am arab laa tabtadi salaamatan jam ñal do fa innaha munakkirun yaa ngay do warga we itam xam nga warga ñaari day faral di ànd ak biscuit lu am solo la mm-hmm, waaw ba war mm-hmm. na man charibal ataaya doona biscuit yi isa takallama fa xulku uskuti sëñ Fallu léppam xikam la ko yow de Mbàkke dañoo ne lu la waay laaj nga tontu léegi damaa bëggoon a xam koy wàññi lu jëkk benn da ko bëgg a jaax ne ko damaa bëggoon xam koy wàññi lu jëkk benn sëñ Fallu ne ko waa ji nañ ko wàññi waay nañ ko wàññi moo jëkk benn bala ngaa bala nga ne benn da nga dañ la naan e eh, wàññal lii wala nga ne na wàññi lii pour xam ko nañ ko wàññi mooy jiitu ben door caato moom baatak ton am na ku ko jubale ak ak wa jëmale ko ne waay mu ne ko mbake dara newut ci nga jëmale ko fu dara newut maanaam moom baat ak tontu rek loo loo wax bala ca tegalee baat moom dootoo waxat xekk ma moom lim ci amoon kenn xamul loolu moom may boromam la ci moo tax way mhm. da ko manoon man gu jéggi dayoo booy waxe baat naar yi dañ ko daan way tëgg tëgg xasit boo xam ne xaafiya bi li nga ciy son nag ni nga ci daje topp ko mhm. soo ko indilee bu toogee ci pliant bi fi mu toog bu ko mhm. jàngee way yi ba mu jeex fi mu nekk ni mhm. da ko naan ci ginnaaw ci la tontoo ci baxaru bi nga ko wayee ak xaafiya bi li mu way yu ni yi nga way yow yi dàq ci saway te doo ci gis benn gàkk kooku xikma li mu ci amoon moo tax benn shaari bi mu koy way dane ci xam-xam da ko ne fil ilmi anta malikun wa fi nada fii ka in kunta abaka ahmada su dee tab moom ndegam sëñ tubaay sa baay moom loolu doy na yow yaa gën a tabe ci àdduna bi doomi sëñ tubaa ju ne day tabe mhm. waaye xam-xam nag maalik nga ci tolloon wa fil xadisi maa lahu yu baari xaadir bihi in xataral buxaari bu dee xadis moom boo indee buxaari yu indil sëñ fàllu ca wet ga lu lu mokkal mokkal na mhm. daal di wax ne xam-xam moom ak géej la ci sëñ fàllu géej la ci xam-xam eh, nee na tasawufu mhm. wa fii tasawuf falaa shakkaku bi annahu juzayluhu al muhakkaku mu ne tasawuf daal bu doon ak garab la neel fii la saxoon màgg fi ba dund fi ëkk gaa ngi ni taxaw boo tegee sa loxo ci kaw sëñ Fall nee na amul kum nga xam ne xeeti xam-xam yëpp noonu la ko toppee xam-xam bu ci nekk mu wane ne moom amu ci morom sëñ Fallu géeju xam-xam la woon ñu ko way ñëpp loolu la ñu wax Cheikh Ibrahima Diop Almachari bi mu koy way mhm. ku way géej nga ko wax sëriñ Maodo ba muy way dane damaa dem Touba atay dafa wax ne atay ataytu ila Touba damaa ñëw tuuba fekk fi sang boo xam ne sayyidan yu daahi rasulallahi bayna sahaabati mu ne ataytu ila tuuba fa alfaytu sayyidan yu daahi rasulallahi bayna sahaabati fa alfaytuhu bahrayni joodan wa hikmatan yamuuju bi am waañi nadaa wa diraayati mu ne dama ko fekk mu ñaari géej di géejug tab di géejug xam-xam oh. mu ne ñëw naa Touba dajeeg sang boo xam ne ni yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wooyee fa woon nga xam ne dafa baax gën ñëpp mhm. tax ñu bind leen waaye wàcce boppam bay lëng saxaaba yi di warandoog ñoom ci ay fas di waxtaan ak ñoom wàcce boppam di kaf di ree ci seen biir mu ne bi ma ko gisee la ma jàngoon ci taarix dafa mel ni yonante bi sallam laa seen ci bind ci ataytu ila tuuba fa alfaytu sayyidan yudaahi rasulallahi bayna sahaabati sang boo xam ne day nuru day saamandaa yonante bi sallam ci biir sahaaba yi mu ne fa alfaytuhu baxrayn dama ko fekk muy ñaari géej juudan wa xikmatan géejug tab tey géejug xam-xam Cheikh Ibrahima Diop almashari bi mu koy way dafa wax ne yabnal xadima lisi yudaa bi fadilina maanaa la fadlaka la unsa wala zakaru sabaxta jiilaka fii ilmin wa fii adabin wa fii wa fii fadaili lam tasfar biha fikaru waaye ne ko nag la sëñ Moussa Ka waxoon ca wolof laxatta nachata min samsin wa min xamarin fa sirtu bahran min alanwaar min alanwaari tasdaxiri mu ne yabnal xadimi lasi yow doomi sëñ Tubaa ji nga xam ne yudaa bi fadilina yow mi ñuy wooye sunu fàllimu maa mhm. naa la fadlaka la unza wala zakaru yow ngëneel yi nga am góor amu ko jigéen amu ko yow rek yaa ko am maa naa la fadlaka la unza wala zakaru ne ko yow nag sabaxta ji la ka fi ilmin wa fi adabin koo taseel jamono yaa ko ëpp xam-xam yaa ko ëppi teggin wa fi fadaa il nga am ci ay ngëneel loo xam ne lam tasfar bi a fikaru nit ta xalaat ba xam li nga am ci yàlla ni mu toll ne ko waaye nag noonu nga mel ne mel yow da ngaa sosoo ci diggante jant ak weer la xattana chata min samsin wa min xamarin soxna aw bu sa sa jur mooy weer wi Cheikh Ahmadou Bamba sa baay jant bi fasirta baxaran min al lanwaar ya tasdaqir da mujj di géejug leer goo ne ay leer ngay duus ñi ko way ñëpp suñ fallu loolu bu ma ko toppee day bari ñi ko way ñëpp géej lañ ko tudd moo taxoon mu wax ne géej laa su baxee lépp yàqu du ma ndox ci aspot maa xajoo seen i bang-bang mbindeef yëpp suñ fallu yërëm leen lamboo ku nekk yërmande ci moom moo tax ba amul ku ko soppul ci kaw suuf sëñ Fallu mhm. man xam naa man sama soxna am na ki ma ki ma ki ma njëkk am ci soxna nga xam ne sama njaboot yu mag moo leen jur mhm. am na mbokk doomu bàjjanam joo xam ne ab njaago la mhm. waaye dafa tuddee boppam njaago sëñ Fallu la tuddee bopp nga xam ne kon am na ay njaago yurul ay julli sax waaye dañ ne ñoom ci sëñ Fallu lañ bokk sëñ Fallu am na ay tijaan yu ko tuddee ay doom mooy ñëpp ko yërmande ji nga xam ne làmmoon na ko ci mboolem bindee fi ku ñu wax jukkoy Cheikh Mamadou Fadal mhm. donte fekkee woo jamonoom nga sopp ko dëgg la te loolu lay wu leer la fi ne boo boo duggee boo nattukaay bi ma la ci jox li mu gën a gaaw mooy duggee boo fekkee xale yu bari yuy fo mhm. neel sëñ Fallou fukki xala juróom benn yi moom danañ danañu geesu amul ku bu kute tuddee doom sëñ Fallou mbaa ku ko tuddeewul ba noppi waaye mënuma kuñ ma tudde waaye ma wutal ko mbootu waaye mën naa kuñ ma tudde moom ndeyam mag baayam wàkk boot rek bàjjana mënuma kuñ ma tudde ma wutal ko mbootuwaay waaye man naa mook ndeyam ak baayam wàkk boot bàjjan am na ci yàlla lu tol noonu ba mu bindalee sëñ Tuubaa kaamilam ba sëriñ bi bëgg ci loolu na ko sa borom nee na nga bind ko kaamil bu mel nii mu ne ko deet sama borom moom damay fay bind kaamil joxe addiye moom yow laa ko mënal waaye yàlla moom am na njëg su bëggee ma bindal ko na ma fay hmm? waaw sëñ Tuubaa ne ko ma diisoog yàlla dugg ci biir génn ne ko sa borom nee na loo looy jaay loo lay fay ci kaamil bi mu ne ko ku la yow sëriñ Tuubaa eh. yaramam araamal sawara mu dem ajjan <laughs> ndax yàlla ci boppam am na loolu te yow tubaa jar nga ko sëriñ bi ne ko sa borom nangu na lool mu bindaat beneen kaamil moo tax sëñ Fallu képp ku am ngor lim ne maay Sénégal maay yoonu murit maay ñëpp ku am ngor ku ne war nga bëgg doon sëñ Fallu ndax ñëpp la nangoo doon te nag na mu leen ëppalee yàlla ba noppi nangoo bokk ak ñoom yàlla jooju mhm. ëppalee num koom nangu koo bokk ak ñoom ku ko re nangoo doon doon sëñ Fall ni mu la nangoo doon jërëjëf moom moo tax yéen ne lim ci làmboo xam naa ne jotaay bi damaa xamagul nan laay def ba jeexal ko ndax fi te yeneen bunt ne gaa ñi sant sëy ak ndaw seen xel nekk na ci waxtu yi ñu def dara waaye ci kanam tuuti insha allah si xablaat dañoo mun waxtaane sëñ Fallu te tudd ñu digg mag gànnaar ak tarbiyaam dafa mel ne mi ngi ko dooree gànnaar yi day tukki boo xam ne sëriñ ba muy dem ci géej ga ba muy dem Gabon dafa am lu wax bi muy ñëw gànnaar yi dafa am lu tax waaye nag dafa mel ne tukki gànnaar dafa tombeek tarbiyeek Cheikh Mamadou Fadel ak Cheikh Mamadou Moustapha sëriñ Fallou ak sar gànnaar sëriñ Fallou ak gànnaar moom junduñu junjoon naa ko xanaa ñu mottali ko rek mooy tarbiye moom mënul ñàkk ci kenn ku baax faaw ñu jaarale fi ñu la war a jaarale sëriñ bi nag ba mu xamee loolu fa mu jaarale ay magam rek euh, fa la jaarale ak njabootam su ma nee ay magam nag mooy mag ñi ko toppoon foofa la jaarale sëñ Fallou ak sëñ Mouhamadul Moustapha waaye ci biir tarbiya googu li ci gën a yéeme mooy tarbiya daf cee bokk xiif tarbiya daf cee bokk mar ay coono yaram yoo xam ne euh, dafay jublu ci euh, wut yàlla ndax ndax coono ñaar la dafa am boo xam ne da ngay xëy ngir wut loo am loo yut sa njaboot loolu nag farata la ndax eh, am na benn xare boo xam ne bi ñu génnee bay dem ci xare bi dañoo gis benn waay bu yor nga joom eh, saxaaba yi nag commencé di ko critiquer ne lan moo tax ñun ñëpp ñu jëm ci xare bi waa ji xëy rango nga joom dem di wuti lu mu amal boppam waaye yonent bi dana leen su fekkee ngaju lim yor lam cay gajj pour dundal njabootam la na ngeen xam ne mi ngi ci jihaad fii sabilillah kon loolu dafa bokk ci liggéey dafa bokk ci jaamu yàlla waaye nag tarbiya mhm. da ngay liggéey ngir jublu yàlla xam nga fi mu ne ñi ñëw Sarsara ñëpp man jàpp naa ne ku fi ñëw rek sëriñ bi lay kët yi loolu tam ñu ko doon mhm. mooy kon yoon wi son gudd na metti na waaye nag am na lu leen yëkkati leen yëkkati mooy yàlla kon ñoom bañ leen di tarbiya dañoo bëgg lu ñuy defati yàlla tax ñu di ko def tarbiya googa nag la ci gën a yéeme mooy la ñu daan wooyee ndabal gor ña bu ñuy wax as gor dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñi àndoon sëñ Tuubaa ñoo day góor ndax sëñ Tuubaa moo ne ñoom ay gor lañ te nag nekk as gor yomb na waaye gore jafe na ñoom nag dañoo nekk ay gor ba pare gore dañoo wax ne euh, bi ñu ñëwee gànnaar li gënoon a metti ci mag ñi mooy xiif bi xam nga maa ngi la doon nettali mag moo xam ne dafa xiif bés xiif man xam naa turam xam santam xam naa sax ëpp sëtam ba mu ne sama maam daal def na gànnaar loo xam ne yàq na suñu der waaye nag baax na <laughs> kooka nu mu defoon. Mhm. dafa xiif a ba àgg ci ne tey jii ku ma reggal ma faj sa aajo. <laughs> sëñ bi nee na mag ñi di ko xool ba mu yàgg ñu ne ko sëñ bi goreel ni ñun ndax fii moom regg ke ba fi jafe waaye pajuk aaju jëfewu fi <laughs> ndax sëñ bi faji ajo mi ngi nii ñu jàkkaarloog moom kon xam nga koo xiif na sonn na tam am na tam mag moo xam ne yanu na gaal eh, indil ko sëñ Tuubaa fii ànd ak sëñ Mandumbe kere ba mu yenni koo gaal gi bopp bi der gopp po daf topp gaal ga ñu di ko ragal di ko ragal ba mu wér sëñ Mandumbe ne ko ñëwal nuyu sëñ Touba na yaa yor woon gaal gi bañ àndee ba dem ci sëñ Touba ba ko sëñ Touba ne ko loo bëgg dane ko tàggoog Mandumbe képp la bëgg kon loola metti woon na waaye xoolal ku ni sëñ Fallou ku mel ni Cheikh Mamadou saa ni ñu tedd ak ni ñu réy ay tur ak ni ñu nekkee taawi sëriñ Touba sëñ Touba wutal leen nag bool bu rafet waaye bool bi kol-kolub cere moo ciy nekk suñu affaire ñangi moom ma ko wax ak lu tolloo kubéeru satal ak ndox te suñu ba gallax ndikoo ndox moomee bu dee takkusaan la suba ci takkusaan la bool bi ñëwaat duñ lekkaat dara nga xam ne dañoo àggoon ci li sëñ Tuubaa doon wax naan yuqiimu salba li kay tuti rabba na ngeen dëgëral seen i ndigg ba mën a jaamu seen borom xam nga li gën a yéeme mooy nekk ci xiif boo xam ne xamoo kañ lay faju sëñ bi gis nga ab xiif soo xamee fa muy yem du yéeme de ndax taal nañ ñi ngay sóor mën ngaa xaar waaye xiif bii nag da nga xamul kañ lay jeex nag ki daan yenu bool bi sëñ sang mi xam na mooy sëñ sëñ Ibrahima Fëri moo daan yenu bool ba di ko dina leen ko yóbbul léegi nag mag ñi gis bool bi te xamuñ lu ci bool bi daan ni sëñ Tuubaa day am na lu ñu jaaxal ci moom ndax bool bii rafetaay bi mu rafet xam naa li ci nekk neex na te ñaari taawam yii la koy yónnee muy sëñ Mourou Sa ak sëñ Fallou benn bis nag sëñ Tuubaa bëgg ñu dañ kumpa li nekk ci bool bi mu ne sëñ bi na ko yenneeku ñëpp xool ko mu yenneeku bool bi ubbi ko biñ ko ubbee ñu fekk ci benn kolkolu cere ak kap kubéeru satala satala satala ndox nga xam ne bu muru Mourou Sow guuxee sëñ Fallou guux mu jeex mhm. bu ku ne tam itam tibb bu baax bool ba jeex nee na bañ ko yéene ñu ne ah ñun ne am nañu mbett ndax bool bii dañoo jàppoon ne sëñ bi da ciy def teraanga ju rëy mu ne bool bi de su ngeen gisee ma rafetal jëmi bool bi loola teral seen ñaari tur yee tax damay teral seen ñaari tur muy Cheikh Mamadou Moustapha ak sëñ Fallou ndax waxoon na ne sama ñaari taaw yii tudde naa leen jëmm joo xam ne nit gënu ko ci kaw suuf seen ñaari tur yi aw tur gënu ko ci kaw suuf su suñu tàggoog seen bakkan ba tàbbi aljanna mm. aljanna sax duñu fa fekk leen gën sëñ Tuubaa moo ko loolu <laughs> dane dane sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou mm. suñu tàbbee aljanna duñu fekk sax biir aljanna ku leen gën wallaay léegi nag bool bi bañ ko yennee koo ñëpp du mooyu ne lii ci ne lii ci ne ñu koy waxtaane sëñ Tuubaa ne bool bi mooy boolu gorñe ndax gor mooy ndax gor mooy ku lekk te suuroo te jàmbatoo wala nga naan te mandiwoo te jàmbatoo te nag lépp ngi fi sëñ Tuubaa mhm. lu tax gileem ak sëfam la daan jox naa naari gànnaar yi kon lépp a ngi fi ba pare kon lépp a fi ba nag di jël benn ngëbub cere bu wow di ko jox sëñ Fallu di ko jox sëñ Modou Sax dañ daan def tam tànki neen bu ñuy taxane ñuy taxan bu ñuy xayma ñuy xayma bu ñuy bay ñuy bay bu ñuy jàng ñuy jàng dana leen tukki bii di gànnaar ab tukki la boo xam ne ku fi ñëw ba ñibbiwaat ci réew ma yam ak ña nga bàyyi woon ci réew ma jërtul ngay tukki soo àggee rek ñëpp dañoo war a xam ne yow demoon nga gànnaar moo tax gànnaar barab bu doy waar la sëñ Tuubaa nee na boo fi ñëwee ba delluwaat rek ne gànnaar laa jógee war ngaa wuteeg ña nga bàyyi ci réew ma kon sëñ Fallou mhm. ba mu jógee gànnaar ba dem ci ba jógee ci yéen ba dem njaareem ba jógee njaareem ba ñëw Touba. Mhm. la sëñ Touba def ci moom ñëpp gis ko xam nañ ne wuute naa ku fi ñu wutoon moo tax keroog ba may wax seen euh, sëriñ euh, sarsaar yi mhm. ñu may laaj waa yoon wi ma ne ah yoon wa de métti na waaye daal seen maam fa la nekkoon. seen maam fa la nekkoon waaw loolu rek laay mag ñoom. ñu ngi santaat baax bokki taali bi nga xam ne kon ñoo ñuy bàyyi xel. Euh, di gërëmaat équipe bi nga xam ne mooy communication Sarsara ci taxawaay bu rafet bi. Cheikh Abdou soo ngi lay sant la gërëm ci Cheikh Mamadou Fadel noonu ñu ko waxee. Euh, gànnaar dafa metti woon. ba fii nu toog nii koy waxtaanee sax koo ci waxtaanee balaa waxtaan waa riis da nga naan demoon na gànnaar wala maam demoon na gànnaar. wala way juram demoon na gànnaar kon dafa nekkoon ci pàggute fi sëriñ bi moom gànnaar nekkoon denc boo xam ne sama borom yàlla moo ci doon fayee Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul euh, muy indaale woon fi nag jëmm di sëriñ Fadilu xam nga sëriñ Fadilu 1945 la wuutu Cheikh Ahmadou Moustapha tàggale réew maag ñeenti raa ragg ak rakkal ràmm ak rafle sëriñ Fall ko biir Sénégal moo tax bu ne maay Sénégal nit ñi por ba sëriñ xam naa sax danga nga ñëw ci diggam ak gànnaar ñaar benn wala ñaar ndax ñu ngi may signalé ne ma li des waxtu yu bariwul waaye li ma gënoon a bëgg nga ñëw ci lu mu néew ne donte juróomi minute la mooy diggante Cheikh Mouhamadou Fadel ak seex Ibrahima Fall Babul Mouridine kon xam naa dama koy maasale Serigne Abdoul Ahad fi mu jeexale ci gànnaar laay laay dolli tuuti rek tat miim rek mottali bu ndaw ndaw rek ndax gànnaar lu am solo la ngir ñu ñu jàngat gànnaar mel ni danañ koy waxtaane waaye dañ koy dañ koy cof dafa mel ni dañ koy waxtaane waaye dañ koy faral di cof mm-hmm. gànnaar sëriñ Tuubaa da ko tuddee woon ardu saalihiina mm-hmm. mooy suufu nit ñu baax ni dëkk bi dafa am lu fi daje te néew fu mu am mooy nit koo xam ne shérif la yore deretu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi nekk waliyu bokk ci xej yi suñu borom yi mm-hmm. surafa u yëpp duñu duñu duñu ay duñu awliya dëgg la shérif yëpp duñu waliyu am na ci shérif yi ñoo xam ne ay shérif lañu waaye du ñu waliyu am na ci shérif yi ñoo xam ne ay shérif lañu ay waliyu lañ am na ci ñoo xam ne shérif lañu waliyu lañu aalim lañ humul ulama wa shurafa wal awliya loolu dafa daje gànnaar loolu nag moo taxoon sëñ Tuubaa tudde ko suuf ardu saalihiina suufu gaa yu baax yi sëñ Tuubaa eh, sëñ Abdul wax na ko muy fukki at yi nga xam ne boo xoolee juróom-ñetti ati géej gi ak boo ci doole eh, gànnaar mm-hmm. dafa wax ne baaha rasulullahi kullal anbiya alayhimu aska salaamay rabbiya bi gurbati ashara sinina bi xidam xaalisatan li sil wujudi wal xidam mu ne yonentu salaam dafa dajale mboolem awliya wal yu yëpp ñu jëkk ñi ñu mujj ñi mu puukarew ak ñoom ci sama fukki at yi ma ko liggéeyal te juróom-ñetti ati géej gi ak boo ci dollee gànnaar mu ne baaha rasulullahi kullal anbiya wal yu yëpp alayhimu aska salaamay rabbiya yàlla na gën jaa sell li xéewal yàlla nekk ci ñoom bi xurbati ashara sinina bi xidam ci tumuranke gi ma tumuranke fukki at yu ma ko doon liggéeye waaye xaalisatan li zil wujudi wal xidam ma def ko ngir jëmmi yàlla dara raxu mooy coono bi mu daj ci géej gi bay wax xusuur ya xallat wal ahlu a tafaraxat a matxi lazi anhul madi xasir taxale nañ maak sama njaboot sama kër ya tas na samay njaboot taqale ko naag ñoom may tagga rasulullaay fu ma toll sun borom ne ko dama lay fay waaye gànnaar laa lay faye dama fa wàcce woon ñoo xam ne dañoo dàmbe ay grade yu bare bare seen maqaamay rëy ci yàlla te cër yañ fa bàyyi amuñu ku ko mën a donn yaa ma liggéeyal ci kaw suuf si loo xam ne mbindeef mosu koo def faye naa la ko demal jëli ko moo tax Sëñ Tuubaa bi muy ñëw gànnaar ñi fi indi da leen a defara defar ba lekk xajut ci ñoom moo tax daawuñu lekk duñu naan ay leer rek leen Sëñ Tuubaa doon rokkas nga xam ne ci misaal mooy kuñ ne kaay jël tiis yi nga ñëw eh, tergaal yi nekk nii ñu sëq jox la nga xam ne boo ko yëlee tergaal yi dina fees ci say loxo te jesmeer ya ña nga ne nga ñi jege ñëpp nga yan leen tergaal yi ñu jox la mbasin yi nga jox ñi ci des ñu jox la jesimeer yi nga téye ko noonu la suñu tubaa def yi gën a rëy te ku dul moom attanu ko moom la ràngoo yeneen yi ci des da koo ràng mboolem ñi indi fi moo tax sëriñ bi gànnaar daa waxoon ne ku fi ñëw na nga mokkal alxuraan te mën a liggéey nga xam ne boo dikkee da lay jàngaloo alxuraan waaye du la occupé ci yorub téere ak li muy baax baax doo fa nekk di wëlbati mooy da ngay tari rek ba noppi naan lii wax ku ñu jox nëkkub cere ku béeru satal ak ndox nga koy nga koy jàllale ba subaate ca waxtu booba sëriñ bi dafa bëgg am na ñoo xam ne sëriñ bi tarbiya na tarbiya woon na leen lu jëkk géej gi waaye ñëw ñëwaat gànnaar fekk ko fi loolu moo lay won ne kon du ak tarbiya kese kese moo leen fi indi waaye ci ay jër la ñuy jël si moo tax gànnaar surafa yi fi dëkkoon seen maxaama dafa rëy ci yàlla waaye see saadu ab yi bokk na ci bi sëriñ tubaab di dem ci géej ñu ñëw ne ko tubaab yi dañ koo jàpp mu ne leen tubaab yi jàppu ñu sëriñ tuuba mm-hmm. wa badrun munirun gaaba fil garbi suma laaha min al garbi suñ tubaa ngi dem ci géej gi nekk weer wu leer bu del see ab jant lay doon ku mu fekk ci kaw suuf si moo lay tiim ku bañ nag mu tiim la nañ la gasal bàmmel bu jant bi fenkee tiim sa bàmmel waaye ku mu fi fekk dina la tiim loolu Cheikh Saadou bi moo ko wax te Cheikh Saadou bi kenn mënu koo ëpp ab cër ci yàlla koo xam ne bi mu nekkee tout tànk bu guddee bu bëggee ziyaara yonante bi salaasam day jóge fii nim nit ñi reer ba noppi mu dem màkkatal mu karam si wër kaaba ga wër rasulullaay madinatul munawwara del si waat te kenn du julli mu dem ba ci nihaayaam yonent bi ne ko boo ma soxlaatee bul ñëwati tàllalal sa loxo ma ànd ak kaaba gi ñu ñëw fekk la nim sat wër la delluwaat kooku moo doon wax Cheikh Ahmadou Bamba wala tansa nii wala tansa ummata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yow Cheikh Ahmadou Bamba bul ma fàtte te bul fàtte xeetu rasulullahi ndax yow la yàlla dénk def doonoyu Moustapha sallallahu alayhi sallam yaa war a ram bu mbindee fi ba duñ dem sawar kon Sëriñ Tuubaa moom ñi amul ci yàlla dara ñoo xamul ku mu doon waaye ñi fees ak yàlla ñëpp xam nañ koy Ahmadu ñi amul dara ñoo xamul kuy Sëriñ waaye ñi yàlla ñëpp xam nañ koy Ahmadu Cheikh Saadu Abi ku yonante bi saasam di sa maam soo bëggee aj mu ne la léegi bul ñëwati bàyyil ma ñëw fekk la fa kooku wax wayul sëriñ Touba ngir bëgg maxaama wayu ko ngir bëgg daraja waaye li yàlla defal sëriñ tubaa loolu rek la wax te mooy sëriñ Touba mooy danoo yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam mooy bi mu dem ci géej gi dafa wax ne li tax ma dem ci géej gi mooy sababu xaybatiya an allaha arada an anala minhu jaaha wa an akuna shafian li xaw mi wa an akuna xaadiman fi daw yàlla daf bi muy dem ci géej bi muy dem ci géej gi la ne yàlla dafa nam ma làq daraja boo xam ne ginnaaw rasulullaay mbindeef dootu ko am waaye wa an akoona shaafeen li xaw mi ma doon rammukatu ummatul islam bu ma ñëwee kenn dem sawar moo tax keroog bi liggéey bi ba mu ñëw yàlla ne ko loo bëgg li ma la santoon def nga ko loo ma sant dinaa ko def waxal fii nga taxaw bala nga yëg ci gaal gi loo bëgg mu ne borom ijaal rujuwaay ila xaw mi saadatana wal takfi naa yow ma jamil xaqu niiraan su ma delloo ñi yaakaar bu kenn dem sawar yow yàlla yaa wax ne la am la an na jahannama minal jinnati wa naasi ajmaina danaa feesal jahannama ci nit ak jinne waaye ñi yaakaar buñ ci bokk buñ dégg mi suñu borom ne ko nangu naa mu ko waaw ñii la tooñ mhm. mu ne ko man Moustapha laa doon ba mu demee Taïf mhm. bañ ko boolee eh, eh, eh, kël bu ya ba yàlla mer ne rasulaay demal ne ko na wax benn baat ma wàcce jant bi montagne bi ci seen kaw dane allahuma ixfir li xaw mi fa innahum laa ya'lamuun suñ tubaa ne afawtu anil a'daa turran li wajhi man nafa li xayri sarmadan lastu ad faw jërëjëf Baye Serigne xam naa ni njaabum gëlëm a xajul ci waañ te fii nga toll tubarkàlla macha allah mais nag damaa junjoon murit bu mag ba Cheikh Ibrahima ba teg ma maay rek ma ma jaar teg Cheikh Abdoulaye Dieye bu ko defee ñu tëjee ko jotaay bi waaw Cheikh Abdoulaye may ma tuuti rek ñaari minute ci diggante Cheikh Mouhamadou Fadal ak murit bu mag ba Cheikh Ibrahima Fall waaw ah, ah. dañ may signal rek ne ma waxtu bi jeex. waaw waaw jërëjëf euh, euh, mm-hmm. euh, xam nga sëñ Mor am na mm-hmm. koo gis rek am na ku muy roy. dëgg la da gis nit mu ne man daal. Eh, kii diine laa koy royee wala kii aada laa koy royee mhm. wala kii culture laa koy royee wala kii nangam laa koy royee sëñ Sam Mbaye na roy googu na am fu mu yem mhm. ndax roy nit ba roy ko ci na muy ñandoo ëpp na <laughs> sëñ Fallou nag nee na mhm. moom ñaar lay roy ñaar ñaar sëñ Fallou nee na ñaar lay roy nee suuf lay roy ak Cheikh Ibra Fall suuf ci kawam la ñëpp dox ci la ñuy xëpp suñuy mbalit ci la ñuy def suñuy salte yëpp waaye boo gasee tuuti rek gis lu rafet maanaam suuf kaw gi mën naa salte mën naa taq mën naa tilim waaye biir gi day rafet mu ne kon maa ngi suuf nuñ ma mën a gisee ak nuñ ma mën a xoolee man hmm. sëñ Fallou sama biir sell na ci yàlla allahu akbar beneen bi mu ne ak taali bi nag maanaam kay kay yéeg ba àgg ci njobaxtal la nga xam ne su si xawaatee beneen jéego day daanu Cheikh Ibra Fall la kon ak taalibe bi Cheikh Ibra Fall képp laa ci roy. <laughs> loolu rek dafa nekk tegtal boo xam ne mën naa résumer dundug Sëñ Fallu ñaari mbir yooyu rek muñu suuf ak taalibe bi Cheikh Ibra beneen bi ci dolleeku tam mooy tiraanga jëm defal Cheikh Ibra Fall. moom Sëñ Fallu waa tiraanga jëm defal Cheikh Ibra Fall te ku teral ku teral ku teral Cheikh Ibra Fall rek Sëñ Tuubaa nga teral ndax Cheikh Ibra Fall da fu cangu Sëñ Tuubaa àgg rek sama njaam gi àgg fa xoolal amul ku xam sëñ Tuubaa te xamul Cheikh Ibrahima wa rafaxnaa laka zikraka yàlla dane sama tur ak turu yonent bi laay bokk yëkkati sëñ Tuubaa nag nee na sama tur ak turu Cheikh Ibrahima laay bokk yëkkati moo tax ku teral Cheikh Ibrahima Fall teral nga sëñ Tuubaa gis nga bi mu jëlee lamp bi teg ko ca kaw ne tuddi na ko bàyyi Cheikh Ibrahima Fall da koo justifié sëñ Fall du def dara loo xam ne wutalu ko lay ndax loolu sariya nanguwu ko biñ ne ko lu tax nga jël lamp bi tuddee ko Cheikh Ibrahima dane kuy ñëw ci sëñ Touba Cheikh Ibra nga war a njëkk si yéen ku jóge fi sëñ ba bay dem Cheikh Ibra nga mujj war si yéen. la ilaha illallah. moo tax ma tuddee lamp ba ca kaw Baye Cheikh Ibra Fall te sëñ Fallou moog sëñ Saliou ñooyam daawuñu sàllalu Cheikh Ibra daawuñu sàllalu Cheikh Ibra sëñ Fallou kay lii wane cofeelam ci Cheikh Ibra Fall mooy mu am leer gum tudde Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra mu sëñ Fallou ñëpp xam nañ xam naa ko bu baax kon tuddee na doom Cheikh Ibra daa daana solo tam ni Cheikh Ibra daana sol mbaxana mu ñuul daana kaalawoo kaala gu ñuul lu masaan def ci xeet yooyee suñ ne ko loo ci jublu la sëñ Mourtala waxoon rek ca ci si karba sëñ Mountakha waxoon ca bis si lii ma sol tey dama cee jublu rek niru niru lu Cheikh Ibra Fall la ilaha te koy niru niru nag soo yàggee rek nga ngay dara ci moom moo tax sax boo gisee njaboot Cheikh Modou Fall am na ci ñu bari ñoo xam ne Baye Fall lañ leen di wooyee dañam boo ne sëñ Abib ñu ne kooku Baye Fall la boo ne sëñ keneen ñu ne kooku Baye Fall la parce que la nekk ci sëñ Fallu faaw mu rogalaat ba egsi ci ñoom kon roy na Cheikh Ibra ci zahir roy na ko ci baatin mm. niru niru lu ko ba koo gis eh, xam ne bokk naa eh, Cheikh Ibra Fall dara ay ay njabootam mm-hmm. kere bi ñu demee ci sëñ xabaan daa wax lu am solo te sëñ xabaan mm-hmm. yaayam Cheikh Ibra doomu sëñ Fallu la kere bañ demee lu ñu wax dane gànnaar amul or gànnaar amul wurus fa ngeen jëm xam nga lu ngeen fay wutee toppi tànki sëñ Tuubaa mu ne toppi tànki sëñ Tuubaa nag moom xabaan mm-hmm. nee na moo gën urus moo gën jamaa topp tànk gi sëñ Tuuba mooy meññin mi gën a meññ ci àddina moo gën jamaa moo gën wurus bi may jeexale sëñ Mor nga may ma ko rek bismillah gis nga tukkiib tukkiib Gabon li muy riis riis mm-hmm. li muy riis riis mm-hmm. sëñ Tuuba li mu wax sëñ Tuuba dane ca Gabon ba yaxtuhu fil bahri fil bahri taxta sajara wal bus wal mus wal mus bi mm-hmm. wal wal bahru musbidun wa awlii fajara bi may jaayanteeg rasulullahi ca ca Gabon ci ron garab gi laa jaayantee nee na waaye keroog nag duusi géej yi ñu may xëbal sëñ sugu bi ñuy ñëw dafa nett li wax ne man loo wax ci sëñ Tuubaa jàpp naa ko mhm. gis nga bi ni ñëw sëñ sugu dane mhm. sëñ sugu dane mhm. dem na Gabon yendu fa ak benn waay ba tisbaar mu tiit ragal ca barab ba ba nekk ko ko yóbbu woon damaa bëgg nga yóbbu ma ma ñibbi ndax ñemeetuma ci barab bi sëñ tubaa moo ne sëñ tubaa moo jam jaww ji nga xam ne moo nekk fële ca Gabon ak mhm. géej ga mhm. dañ ma doon xëbal ah. nee na géej gi damay xëbal nee na duus yi day jóg ba ca kaw mu wàcc mel ni ay dënnu yu daal ci sama kaw waaye nag nee na fekk na man doyloo naa yàlla ba ragalatuma dara lu may tiital waaye nag nee na ba ma demee gànnaar bayaxtu fil bahri fil bari tahta zajara wal jaww musbidun wa awli barara ah. gànnaar gànnaar bi mu fi ñëwee environnement bi dafa yaru environnement bi dafa yaru daf maa jox respect jox ma yar jox ma teggin ba mbooye mi dana tekk jaww ji ne tekk barab yi sedd gaa yu baax yi wër ma di ma teral di ma laaj ci yonent bi ma di leen jox ngir yàlla su may julli ñu julleendoo ak man suñuy woor may woorandoo ak man lu ñuy def ci lu baax ma koy defal Mhm. jërëjëf kon ah. wax na ko léegi dane barab bi mi ngi tudd ardu saalihiin so mhm. su tey la mhm. kon fii ku fi ñëw loo sa bopp waaye sëñ Tuubaa lépp a ngi fi macha euh, euh, waaw Bamba waaw tooñoo borom tooñoo borom tinunu tooñi xarnu bi Sëriñ Tuubaa wala yaa oh, mat doon Ahmadu Baram jaam ñi Baye Cheikh Momadal Faadal Baye Cheikh Mour Moustapha Mbakke wallaay yaa mat li doon fekkoo ci àdduna moroom ay tooñoo borom Serigne Touba tooñul morom tiil nu tooñi xarnu bi yaa way yonen sànni ci géej way way di géej géej géej di géej Cheikh Bamba yow rek kay géej ramal nu xërnu bi ani niraani wallaay sëriñ bee di géej donga yaa di jën janu dee ci biir géej loola du ya alaaji mamadal faadal alaaji mamadal faadal ku sopp sëriñ Fallu defal ni ñu màggal ko fadluna siimun faarisun bakking bu soo bega kii mooy njiite mooy wasila lor dem na xiiwali baan dootu jeex abadan ku sopp Serigne Fallou ku sopp Serigne Fallou ku sopp Serigne Fallou xéewal war la dadu la day mën na daa tànne fi xam nañu la bàyyi Serigne Abdou Karim loox borom nguur gi gaaw ko yaay ki jibe waalu soodaan seen mbooloo ma xam nañu la baytil wilaayate yaa yor fondement ba bu wér. jërëjëf jërëjëf jiite mboolem kunne wal yu laay. macha allah mënul woon a ñàkk de. waaye a ñàkk. Bamba Dior. jërëjëf itam mbokk yi xel. ñu mayaat jotaay bi tuuti ak dal rek dañu xamal ne ñoo ngi seetaan. te it bëggoon naa ñu bàyyi xel bu baax jotaay bi jërëjëf sëriñ bu so Cheikh Abdoulaye jërëjëf jotaay bi am na solo lool danay rek sant bu baax gërëm mbokk taalibe bi ñu àndaloon liggéey bi. mu mel ne jotaay bi dañ koo jagleel Cheikh Mouhamadou Fadal sëñ Modou santaat yàlla bu baax julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delloo ngërëm seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñu ngi sant baax sëñ Abdoulaye Dieye nim ñu indile jotaay bi ak sëriñ euh, Baye sëriñ Bousso mi waaye nit ci sëriñ Bamba Dior duggsee ak wala fal yu am solo murit bu mag boobu nga xam ne ci lañ daaneel seenu kàddu muy Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin dafa am bis ca ca tund jeewal sëriñ bi ne ko Cheikh Ibra mu ne Mbàkke mu ne ko damaa bëgg man ak yow nu fay bor mu daal di sikkar wër seexul xadim ñett yoon ne ko ah Mbàkke doo jóg ci di ma bett mukk de doo jóg ci di ma bett mukk doo jóg ci ma bett mukk mu ne ko ana lu tax mu ne ko damaa xam ne mbubb mii nga sol amut poos ba ngay yorub dërëm te man mii di sab dong ma dërëm boo ma ko xoon biig ma gontoon yelwaani buñ xëyee daañu am bor buñ faye luñ faye bor bi sëriñ bi ne ko Ibra Faal mu ne Mbàkke mu ne ko bor bi kat damaa bëgg nga xam ne dërëm fayu ko wurus fayu ko xaalis fayu ko Ibra Faal mu ne Mbàkke mu ne damaa bëgg yow mal xiyam lakbar bu ñu seeg jën ak malaayka yembe fi kanam sama borom bu ñu tuddee Ababacar Saddeex ak Yonent bi sallallahu alayhi ma bëgg ma la dañuy fay bor kon jotaay baa ngi ñu jagle ko sax ki ñu ngi leen jox rendez-vous ëllëg insha Allah santaat baax abara suba nag ñu fas yéene wéyal liggéey bi ci cantuk Serigne Massamba ñaanalaat nag jëwriñ ji liggéey lii ba sama borom yàlla cëral ko cër bu toll nii muy jigéen ju man góor wuute ju teew mooy soxna maam Issa Mbacke njiitul fédération Ahlou Café di ñaan ko fi teew rek nga wax ci sa làmmiñ ne soxna maam Issa Mbacke yàlla na fi yàgg ànd ak wér ñu tàllal sunuy loxo sëriñ Modou Kara ñaanal nu tàllal sunuy loxo maa si wax amin sëriñ di ñaan bismillah amin kon sëñ Modou Kara mi ngi ñaan amin yaa rabbal alamin amiin amiin amiin jërëjëf Mbacke